alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jërëjëfati sëriñ tuuba jërëjëfati sëriñ tuuba jërëjëfati sëriñ tuuba jaaraama maam Cheikh waaw ñu ngi yëkkati kàddu ci turu Pamecas Touba nga xam ne fi la Touba ca kanam ubbi kontam euh, comme PAMECAS dafa nekk mutuelle d'épargne et de crédit day baax xëy na ñu leeral li ko wutaleeg banque yi mutuelle d'épargne et de crédit dañu wax lépp ñëpp la lu ne ku ne daf ciy ne quand on est membre on est propriétaire kon Touba ca kanam dafa bokk ci ñi nga xam ne dañoo moom Pamecas Touba quand on dit pamekaas Touba Pamecas région de Diourbel la diggante Bambey jurbel Mbacké Touba kont bi ñu tijji nag day may possibilité day day jàppandal nit ki fu mu mën a toll ci Sénégal mën cee verse donte 1000 francs boobu ñu wax ne moom lañ ciy verser ci région yi yëpp bu demee da koy verser gratuitement maam du ci fay benn tax ba pare dana am reçu de versement euh, te disposition yi nga xam ne réseau PAMECAS ndax PAMECAS Touba dafa bokk ci réseau PAMECAS nga xam ne Sénégal gi yëpp région boo dem da nga fay fekk benn agence wala benn guichet PAMECAS Touba ci la bokk disposition yi nga xam ne directeur général bi jël na ko mooy fépp fu membre PAMECAS nekk bu ko soobee mën naa jël engagement chaque weer ñuy dagg directement ci comptam 1000 francs di ko verser ci compte Touba ca kanam boobu benn la bi ci des engagement bi nga xam ne euh, dirigeant yeeg personnel bi jël nañ ko seen wàllu bopp ñoom it li ñuy wax bay ci sa wewu tànk ñoom ñoo njëkk a tàmbali loolu nga xam ne dañoo ñi ci ëpp jël nañu engagement tamit di verser directement ci compte Touba ca kanam euh, euh, sant yàlla euh, bi nga xam ne PAMECAS ba tey dafa bokk ci li ñuy wax siif nga xam ne sur le plan international dafa am yeneen juróomi région yu nekk ci Afrique de l'Ouest yi mu bokkal nga xam ne bépp transfert bu nit mën a def ba ko yóbbu ci compte Touba ca kanam te nekk ci juróomi dëkk yooyu muy muy Bénin di Burkina di Mali di Sénégal di Côte d'Ivoire yooyu yëpp fu fa nit mën a nekk bëgg a verser ci compte Touba ca kanam PAMECAS mun naa jàppandi loolu mun na kaa yombalal li nga xam ne ba tey Euh, nga xam ne ki fi teewal FINAO ànd kaw direction général dañ ko jël mooy produit bu ñu tuddee Danaya Cash système de transfert la boo xam ne nit ki même bu nekkul PAMECAS membre am na possibilité ñu installer ko ci téléphone am ba transfert bu mu bëgg a def ci compte Touba ca kanam dana ko mën a def comme jamono ji day dox ba ñu ngi wax ne dañoo toll ci li ñu tuddee mobile banking loolu outil la boo xam ne direction général ak FINAO ñoom ñoo ne dañuy accompagner partenariat Touba ca kanam PAMECAS ba outil boobu ñu mettre ko à la disposition fexe ba mu jàppandal ci membre fu mu mën a nekk muy am possibli possibilité di bu bëggee verser verser ci compte Touba ca kanam loolu daal xam naa ci gàttal euh, mën nañ ko cee waxandi wax aussi ne dañuy wax ne PAMECAS c'est la finance sociale te defe naa doxoon nañ ci ay jéego ànd koog Touba ca kanam bi mu commencé ay action sociale ci at mi ñu weesu wax dëgg yàlla ñu nit lañ ca man ci wàllu joxe ceeb diw meew ànd kook Touba ca kanam mu kawe lool ndax euh, ni ko sëñ Abib di mooy dañuy laaj nit ñi lu ñu am te di ko def fu ñu xam kon wax dëgg yàlla sant nañ ñun waa PAMECAS sant nañ ci ànd bi ñu ànd ak Touba ci kanam ndax dañ cee gis suñu bopp dafay mel ni diggante sotti ceeg def ci la